MNER alors que RNER e mooy réseau national des enseignants républicains kooku nag dañ ne si soxo moo ko jiite bu case des tout petits ki DG case des tout petits léegi nag loolu lañ ne loolu yëpp ma Mahmoud Saleh moo ko def du kenn Mahmoud Saleh ci boppam ministre d'État directeur de cabinet politique du président de la moo nekk derrière tout sax waaw Mahmoud Saleh nag moom ñëpp xam nañ ko tey te loolu sax du cëram ndax nekkoon na ministre d'État directeur de cabinet politique du président la République kooku bu ko neexee dugg ci affaire politique structure yeeg yooyu mais tey ministre d'État directeur de cabinet administratif du président la République sa yoon nekkul ci politique mais jaxase rek ruube léegi nag loolu ñun duñ ko nangu mënul nekk ndax structure bu ñu koy changé ñun kenn bañul Macky président Macky Sall moom moo jiite parti bi su structure bu demee ba Youssou Touré doyu ko ñi jiitee structure doyuñ ko moom moo wara a woo ñooñu ne leen li ma leen dénkoon jël naa ko léegi dama koy jox keneen te loolu sax directeur des structures sax war na ko yëg ku mel na mbay Ndiaye mais loolu yëpp yëgu ci dara max mu sale toog fi mu toog kenn xamul naar la kenn xamul séeréer la ah toog fa fa mu toog di def lu ko neex di jouer au aux gens collés non moo raw Jean Collin yàlla na ko yàlla xare ajana waaw mais max Mahmoud Saleh moo raw Jean Collin waaw léegi nag ñun fii la fekk dugal euh, dugal na ci loxoom ci euh, ci jeunes yi gis na li li li ko ci li ko ci fekk gis dugal na ci loxoom ci femmes yi gis na li ko ci fekk léegi nag enseignants yi ñoo ko dese on restera de pied ferme waaw ñu ngi wax ne jàngalekat yépp tant que le président Macky Sall waxul lañ sa lañ nekkoon lañ ci continuer nekk ci seul le président de la république Macky Sall jiite parti moo mën a wax lu ñuy def ak lu ñu dul def mais ma ma Mahmoud Sall jiitewul parti bi du moomul parti bi tey ku mu àndal tey bu subaa mu xeex la c'est ça la vérité c'est ça c'est comme ça qu'il fonctionne nee nañ xaw ma ay maoïstes lañ xaw ma ay lu ñu doon trotski sag yu kenn xamul fi la ñuy fekk waaw donc tey ku mu ngemb suba